homme politique yi lu baax ci ñoom waruñu koo wax wala aussi homme politique yi aussi lu bon ci ñoom waruñu koo wax wala homme politique yi aussi lu ñu war a jubbanti si ñoom waruñu ko wax wala homme politique yi aussi lu ñu war a jox comme yóbbal waruñu ko def beneen bi si topp aussi dañu jàpp ne rek intellectuels yi dañoo war a sori parti politique yi mais non ça parti politique yi di leen aider pour ñu def des arbitrages démocratiques yi ngi dem ci nguur gi Euh, à au niveau de PASTEF sans sans budget sans du tout fayu ñu la defu nga dara. Mm-hmm. c'est c'est en soi novateur. day wane ni nit ñi bëgguñu la facilité. oui d'autant plus que ñun ñooy bind di wax ne parti yi dañu war a fonctionner autrement. la haute autorité ñu ne la yow c'est la haute autorité soo soo soo soo soo soo àddoo kenn mënu ci tënku ñëpp ciy tënku pardon Ousmane Sonko su jotee woon avec le plus simple militant kooku bind la haute autorité su ñu nee militant bi moo am dëgg moom la ñuy jox dëgg te Ousmane Sonko da ciy tënku. très bien ah, mais c' est ça la réalité bu fekkee bëgguñu loolu leneen la ñu bëgg aussi que nguur bu bu waxee ñu ne nguur bu Pastef la bokk loolu mënoo ci dara da ngay bàyyi nit ñi ñuy wax rek parce que aussi man dama jàpp ne waruñu bañ. mais du temps et puis c' est des formules yoo xamante ne dañuy am des grandes mutations rek mais du temps du Gracien ak le professeur Iba Der Thiam koy ñaanal ñoom dañ ko doon def avec le parti socialiste mais c'était sous autre forme sous une autre forme di bindu di critiquer Abdou Diouf et mais les autorités loolu lay jëriñ tey par exemple la démocratie interne man bindoon naa ba bind papier wax ne l'improbable renouveau des partis politiques parce que man aussi nit ñi yow invité nga ma combien de fois ñuy wax sur les partis politiques mm. may wax sur les partis politiques la démocratie interne des partis politiques donc c'est ma tasse de thé et puis donc euh, voilà bi ñu ma koy jox et dama jël aussi samay responsabilité et même ñoom waa PASTEF ma ni leen à une seule condition que la haute autorité ñu décider dañ ciy tënku ça doit être une autorité boo xamante ni détachée de la direction du parti. lu tax nga nangul ko Pastef pourquoi pas beneen parti pourquoi Pastef. parce que waa Pastef ñoo ma ko proposé. Mm-hmm. ñoo ma ko proposé xam nga nag nit aussi man ndaw laa rek bon voilà nekk benn sénégalais bu ma ñeneen ñëwoon wax ma loolu parce que man je parle avec d'autres sénégalais ah. Oui. en termes de science ñu bëri aw ma man frontière dañu may woo professeur dama bëggoon laaj la sax bi may ñëw nii rek am na ku bëggoon am na ku ma woo koo xamante ni donc voilà euh, macha allah ni man dama bëgg donc voilà pour ma ni ko allez-y ñu waxtaan. Mm. noonu laa koy defee mais ñoom ils ont eu donc voilà cette euh, donc voilà flair wax ma ko et puis j'ai pris mon temps hein, avant ma koy nangu mais ñoom ñoo ma ko proposé man je ne suis demandeur de rien ñoom ñoo ma ko proposé bu ma ko ñeneen proposé woon ma dem fa parce que man am naa fulla c'est-à-dire loolu mooy un noonu rek laa ko jàppee mooy xam sa bopp. Mm. donc feneen fu ma demoon aussi c'est pour fair des arbitrages démocratiques dama koy def c'est eux qui me l'ont ko mais. lan mooy <laughs> say rapport ak alors bëri na bëri na mais li ma mën a jàpp mooy Ousmane Sonko déjà c'est des rapports euh, voilà yoo xamante ne man damay jàpp ni man ak moom déjà am na wóolute ci côté boobu par rapport ak parti bi laay wax ko mm. parce que aussi quand tu es désigné dans un parti politique donc ñu nekk ci parti bi dañ lay wóolu benn la deuxième chose aussi mooy je pense que am na respect parce que man respecté na sama xam-xam. la deuxième chose aussi rapport bi ñu am aussi respect boobu noonu mooy aussi man aussi nangul naa ko cëram. Mm-hmm. donc koo xamante ne la responsable politique la boo xamante ne aussi naw na xam-xam. voilà naw na xam-xam parce que man. Euh, loolu dama koy wax parce que comme ni ma koy waxee moom moo ma proposé loolu am na ñeneen ñu ngi man je ne demande de rien beneen rapport bi ñu am aussi je pense que aussi mooy taxawaay bi ñu taxaw dans l' espace public. moom si cëram en tant que homme politique mu am ni mu taxawee man aussi si sama cër en tant que aussi homme de droit en tant que enseignant dans les facultés peut-être que loolu lañu gis ñoom ci Pastef moom aussi donc c'est une sorte donc voilà donc de convergence de vues sur ça et donc mun naa ko nangul ñëpp dafa meloon ni rek tey jii nii par exemple que le gouvernement du Sénégal donc euh, laaj ma sama avis dans le cadre d'un rapport euh, quelconque euh, sur les médias sur euh, donc l'université et cetera s'il y a une convergence de buts ça pourrait les intéresser mais lu may wax ni man mes connaissances sont à la disposition de tous les Sénégalais mais par contre le parti PASTEF ñoom ils ont donc voilà gis nañ naw nam sama xam-xam donc dénk ma loolu ba pare woolu lañ ma aussi. kañ nga xamante ak moom. je l'ai connu en juste bi ma ñibbisee Sénégal jóge France à l'occasion du référendum si la ñu xamante et puis bi mu ma gisee aussi ñu waxtaan bon euh, mooy Ousmane Sonko loolu laa jàng sax ci moom que nit ñi li ñuy wax toujours il sollicite les avis techniques nit ñi sax dañ koy wax sa communication et cetera mais xam nga toute communication forcément nit ñi kii mais il sollicite euh, des avis techniques donc 2016 la ñu xamante. à l'occasion du référendum de 2016. Depuis lors, donc voilà, c'est donc des rapports donc euh, muy nit koo xamante ni aussi dama am ci moom respect parce que koo xamante ni la dafa am gëm-gëm parce que loolu xam naa ko ci moom voilà c'est quelqu'un koo xam ni il a la foi dans ce qu'il fait et donc il a moo tax toujours damay wax ni c'est un patriote convaincu. alors bëgg naa taxaw fenn suba mën nañ la gis nga def politique. alors xam nga on ne peut jamais insulter l'avenir man mais man. déjà li may jàngale ça touche à la mhm. politique donc mhm. droit public lay jàngale mais du ma ni déet du ma ni waaw li ma mën a xam mooy citoyen sénégalais la donc euh, sama sama dëkk mën na ma soxla ci yenn yi mais quand donc lépp lu may def lépp lu may dugg rek conviction laa ci duggee fu gis tey sa bopp ci patriote yi man je suis un patriote patriote donc d'accord demain mën nañ gis nga bokk ci parti non dama ne la man du ma euh, insulter l'avenir. wala taxawal sa fa bopp. mënu ma insulter l'avenir mais lu ma mën a wax mooy jàpp naa ne li may liggéey nii man pour man am na solo ci démocratie yaa y un parti politique boo xamante ni man wóolu nañ ma dénk nañ ma loo xamante ni nii bëgg naa yeneen parti inspiré wu ci. loolu moom mooy solo si man pour man damay jàpp ne les parti politiques kenn waru leen a xool ñuy nekk des conglomérats ou des entreprises. parce que dañuy tàggat askan wi loolu la ñu wax. Mm. dañuy permettre la nouvelle citoyenneté mais aussi les partis politiques fabriquent des gouvernants et donc si les partis politiques fabriquent des gouvernants aussi partis politiques yooyu dañu leen war a jëmmal dooleel leen donc dafa war a am ay kàngam ay ñu xarañ ay boroomi xam-xam mais aussi ñoo xamante ne aussi dañuy réguler parce que parti politique boo dugg am na ay xëccoo. no problème de positionnement et mu am ñoo xamante ni ils ont de waxee aussi mu am benn probité dans leurs décisions et dans leurs que dinañ mën a permettre à ce que tey bu fekkee ne parti politique bi jot nañ ci nguur gi du mën a doxalee nu ko neex nga xamante ne yenn citoyens yi nga xamante ne nekkuñu parti politique bi aussi du ñu vivre problème bu parti bi. Mm-hmm. mais loolu noonu il nous faut un peu de temps mais je pense que donc c'est pour secouer aussi le cocotier man si je suis aussi donc voilà comme j'ai dit c'est une tâche exaltante mais ingrate. ci opposition bi ma taxaw si est-ce que am na tey profil wala koo xamante ni xool nga ko naw nga ko ci taxawaayam balaa nga naan ma Pastef Ousmane Sonko <laughs> sa boobu wax nga ma pare mais ci li nga gis ñi nga xam ne ñoo fi nekk am na koo ci gis tey profilam gis nga ni méngoo na ak li nga xamante ne moom nga gis ne parti politique wala homme politique noonu la war a doxale non bëri nañ man gis naa homme politique yu bëri fii nii ñoo xamante ne. j'ai énormément de respect envers eux moi je te dis que en fait euh, ñu ñu ci bëri jot naa sax liggéey ak ñoom ci ci ci ci ci ci. ci ci ci ci mbirum yoon ci mbirum texte ci mbirum système ci mbirum politique même mais bari nañ mun naa citer ku mel ni l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye mun naa citer Thierno Alassane Sall mun naa citer Abdourahmane Diouf. Mhm. mun naa citer Déthié Fall. avec qui on a eu à travailler mun naa citer. Euh, Khalifa Sall il a une expérience boo xamante ni donc euh, voilà mën naa citer aussi Barthélémy Diaz mën naa citer aussi euh, ku lim juuma. Ah. kon amoo euh, sens interdit. si non non non mes connaissances sont la disposition de tous les Sénégalais ñi may woo sax dañ koy xam d'ailleurs mais li mën a mën a wax mooy le Sénégal quand même a des hommes de valeur. Et moi, je pense que d'ailleurs, Abdourahmane Diouf ne s'est pas trompé quand il parle de génération d'idées. Même si euh, bon, pas, je ne suis pas d'accord sur la démocratie de concordance, mais c'est ce que nous avons génération d'idées. Nous avons des acteurs donc euh, am nañ benn taxawaay boo xamante ni am nañu xarañte bon maa ngi doon fàtte sax Karim Meïssa Wade aussi parce que en fait euh, je me dis que c'est 2024 être cette euh, grande élection la grande élection mooy bi nga xamante ni en réalité c'est des ténors mais ñoom ñëpp dañoo quasiment bokk génération di défendre quasiment les mêmes idées même s'ils sont opposés dans l'idéologie mais dans les idées ils défendent les mêmes causes et pense que dafa doon permettre sénégalais yi am benn tànneef boo xamante ni en réalité dina jaar yoon moo tax ñoom ñëpp ko ci ne nag am nga say force ak say faiblesse. ci li nga wax ni yëpp tuddaloo ma kenn ci benn bokk yaakaar. dama doon wax noonu xam nga benn bokk yaakaar damay wax ne su ma fa tuddee parce que yow nag ma wax defe naa ci wujj gi nga ma laaj opposition nga ma mm-hmm. bokk yaakaar ñoo nga ko nguur gi donc mënu ma woon a wax loolu yoo tamit aram <laughs> sinon les gens là ñu bëri bokk jàpp nañ ne euh, ci li ngay défendre. Mm. taxawaay bi. Mm. opposition bi nga gën a défendre. waaw xam nga te nee nga sànq intellectuel nga nangu. Mm. nit bu defee lu baax nga wax. bu teguwul ci yoon itam nga wax. waaw mais man am na ñu. am na fële wala fee lépp non déedéet man am na si ñu bari ñoo xamante ni gis naa sa des gens yoo xamante ni ku mel ni Aly Ngouille par exemple c'est quelqu'un koo xamante ni nit ku tijjeeku la. macha allah man xam naa ci dara. et puis c'est nit ku dal la aussi et bon naw na xam-xam aussi ku mel ni aussi mm, le premier ministre Amadou Ba donc euh, voilà ak ku mel ni ñi ma xam ku quoi lay wax. bon am na ci ñoo xam ne man bon voilà maintenant am na ñeneen ñoo xamante ni aussi bon dinaa leen seen de loin dinaa leen jàngat mais di sais am nañu benn pas-pas taxaw gis naa l'actuel mosuñoo gisante sax mais l'actuel ministre des finances ku ku ku ku ku am taxawaay la ci li muy def. maanaam euh, boo ko gisee assemblée nationale euh, moi j'aime bien sa technicité et cetera il essaie quand même de faire donc euh, de son mieux il y en a d'autres ah il y ñoo xamante ne ce sont des jeunes des jeunes politiques que je sais ñi que je connais pardon ñoo xamante ne ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar parce que man il m'est arrivé par exemple d'écrire des pro pro propositions de loi pour tous les jeunes des partis politiques moom ci laa ci laa ci laa xamee jeunes yu bëri quoi. ñu booloo woon donc voilà pour te dire que moi j'ai pas de sens interdit mais mun naa joxe donc euh, d'autres profils ñoo xamante ni par exemple euh, ñi ngeek le président de la République et pourtant ce sont des valeurs sûres ñoo xamante ni tey jii nii. franchement ñu ngi liggéeyal Sénégal maintenant quelles que soient donc les limites de ce travail ak donc les critiques qu'on peut faire mais li ma jàpp mooy donc voilà ils sont nombreux à être par parmi. kon waruñu am problème tànn candidat. waaw xam nga tànn moom dafa metti li may wax parce que qui choisit élimine mais man damay jàpp ne euh, président de la République bon moom moo indil boppam jafe-jafe yi. ci ah, bu ne woon du ma candidat bu yàgg nga defee ni du xam kuy candidat bu fekkee même kuy nekk ci gouvernement bi la mu génne ko dans l'attelage du gouvernement mu dem defaru préparé xam nga une élection présidentielle dafa fiir c'est l'élection maire xam nga élection la jigéen la dafa fiir hmm. élection boo xamante ne la dañu ne c'est l'élu du peuple une personne la fal benn chaise la moo ciy toog moom laa wax sànq c'est la rencontre entre un homme et son peuple hmm. da ngay wu lu yàgg pour mën ko gagner moo tax président de la république donc son camp aura un lourd handicap à porter déjà ki muy choisir est-ce que dina am l'onction de la coalition est-ce que dina am légitimité est-ce que dina fi mun a am temps pour préparer est-ce que dina mun a am un projet boo xamante ni porteur par rapport au projet présidentiel wala dans la continuité lay nekk en sachant que y a une forte contestation quand même donc de ce que fait le gouvernement malgré que donc il y a des avancées dans certaines donc euh, dans certaines boo koy xayma parce que dama doon wax tout le temps que ni su ngeen jëlee parce que moi je travaille avec les chiffres comme ça voilà l'analyse elle là d'ailleurs les chiffres mooy soo xoolee ci élection législative yi wala locales yi le gouvernement a perdu là où il a le beaucoup et il a gagné là où la a le moins investi. Mhm. kon nga xamante ne am na ñoom lu bëri lu leen manqué lu ñu war a jubbanti. et loolu noonu day wane juste que ni dans leur travail dans leur stratégie amoon na lu bëri président de la république moi je pense que li mu supprimé woon poste premier ministre daf ko tardé loolu lu bëri. vous man ak yow doon nañ ci wax et cetera j'ai toujours di que da koy def mais da koy di yàgg naa yuuxu di wax kenn dégguma woon finalement ñu dégg ma doon wax tout le temps que amul droit troisième candidature bu et que waxi troisième candidature tey jii nii lim ko jural gis nga problème mu tànneef la am alors que mois prochain dañuy dugg ci parrainage ñu war a dugg ci parrainage mais ki pare ne il faut nit ñi xam ko par respect même aux électeurs donc euh, man nag du man maa leen tojal seen bopp jinax mais li may wax aussi nous sommes des sénégalais quand même et par respect aux sénégalais donc nit ku war a dem élection bu parrainage yi war na au moins dëggal boppam ni man damay nekk candidat quand même parce que parrainer quelqu'un n'est pas donc euh, voter pour quelqu'un mais pour être candidat il faut forcément être parrainé donc c'est une pièce maintenant parce que la candidature à l'élection présidentielle ah mois février. foofu moom ñu wax man foofu moom damay prudent. li ma gëm mooy Sénégal dañu war a respecter calendrier électoral et jusqu'à présent ñu ngi ci disposition yooyu mais li ma jàpp mooy man li ma gis nii ñi koy def dafa mel ni daa am ñoo xamante ni tey jii bëgguñu élection bi am. comme ñoom ah bu ñu jàppee le chef de l'opposition dugal ko ci kaso bi bu ñu jàppee plus de huit cent membre de PASTEF dugal leen ci kaso bi bu ñu bañee PASTEF réunir. bu ñu bañee Pastef investir son candidat bu ñu ñëwee di ko dissoudre mais loolu dafay tey xel li mu mun a wax mooy les partis politiques concourent à l'expression des suffrages la article 4 bu constitution wax nañu bàyyi nit ñi ñu dem vers les citoyens yi nga xamante ne ñoom ñooy def l'arbitrage démocratique l'arbitrage n'est-ce pas bi nga xamante ne moom mooy permettre donc ñu natt souveraineté ñu natt légitimité léegi nag maintenant donc soo xoolee déjà booba ba tey le parti au pouvoir amagul candidat ça pose problème ça pose problème c'est un énorme problème boo xamante ni nii nii tey moom laa la doon wax sànq xam nga mooy li la doon wax sur la haute autorité tey ñoom bu ñu amoon haute autorité boo xamante ni nii dafa defoon comme la haute autorité de PASTEF maanaam la haute autorité de PASTEF dès le mois de janvier dafa bind ne